salaam salaam gaay maa ngi nuyu ñëpp cat ba cat ku lim juum ñu fas yéene euh, dellu siwaat waxtaan ak yéen lépp ci dal ci li nga xam ne mooy tolluwaayu réew mi ndaxte nekk nañ ci jamono jaxle tey bëgg na yëkkati sama kàddu waxtaan ak suñu mu ko mayee ñu nekk ci Pastef muy benn waxtaan ak yéen ci ay firnde yu leer ndaxte dañ jàpp rekk ne lépp duñ ko làmbatu yàlla def na ne lépp luy rapport bi jëm ci affaire wér-gu-yaramu Ousmane Sonko ci samay pexe fexe naa ba liir ko xam la ca nekk xam la lañ wax tamit kilifayi ci état de santé mu jaaxal ma lool nag en toute honnêteté te kilifa yi nga xam ne jox nañ leen ko ñuy ministre de la justice yegg ci premier ministre dem ba ci président de la république amaana sax ministre de l'intérieur xam nañ bu baax a baax que leur et grave très très très grave ñoom xam nañ ko bu baax waaye ñu tàmbali li ñuy wax léemu bi dama bëgg ngeen déglu ma de l'heure est grave très très très grave te ñoom lay waxal te li ma leen fas yéene wax bu nekkul dëgg nañu génn miim ko ne lii jotuñu ko ci ay rapport mais ñu mu tuuti mais gars yi connecté wu ma wax leen lan mooy dëgg parce que coow li bari na trop n'ai jamais été autant dégoûté, dépité de ma vie. nu may suivre sax gis nañ dama koy statut parce que musuma woon gëm ne réew mi dina yegg à ce niveau d'abomination bu leen neexee ñu xañ Sonko mu bañ a bokk ci élection parce que nee naa leen deux mille vingt quatre bu pënd bi wëree neex naqadi ci ban anam lay doone nag yàlla sunu borom rek moo ko xam ndax wax mu yegg sax yàlla la neex kon nekkuma fi pour xam nga gars yi dañuy wax ne wuy Euh, ñoom léegi triste triste lu non nun bañ ci tolloo war ko def dañ ko assumer ñi yoroon seen làmmiñ di wax ñi daan dogal xamoon nañ ndax ñun dañu nekkoon ci tricherie wala déet parce que loolu am solo parce xam nga nit mën na bon soxor iñaan iña ñiti di wax mais dama leen di yëgal na leen Ousmane Sonko ci boppam sax buggul ñuy wax état de santé mais dañoo warloo ñun devant l'histoire devant le peuple sénégalais ku nekk na nga ku nekk na nga assumer parce que ni séq Ousmane Sonko yépp lépp lu leen war boo xoolee kayit yi def nañ ko parce que dafa am protocole boo nekkee ci grève de la faim parce que man dama ko dund ñetti yoon boo nekkee ci grève de la faim lii rôlu administration pénitentiaire lay wax nan ko nu ma ko dundeek ñoom nga informer leen ñoom ñu constate ne détenu bi lekkul naanul jël ki nekk ci infirmier major bi muy ñëw la matin jël say constant xool la jël say constante mooy sa température ta santé xool say pulsion xool ndax dafa mi jël say constant mat ba ma ko defee nekk ci biir cellule bi damaa demoon ba bañ na loolu dootu jëlatuma constante bu ñëwee wax monsieur ñaa mën a leen def leen seen rapport jëluma constante defu bañ may évacuer loolu yëpp tey jii lu gën a raw loolu moom la Ousmane Sonko tuddu billahi wallahi wataalaahi rapport yëpp jot nañ ko amul benn bu ci manqué xam nañ ko yàlla rek moom mooy tax di wax ñu bari dañuy wax ñu wax Ousmane Sonko mu bàyyi grève de la faim bi yónni nañ ma message yooyu mais je suis mal placé man pour wax ko loolu amaana su ma ko waxee dama way def rek li ma war ndax tamat ba ma ci nekkee di ko def yónni na ay nit ñu ñëw ñaan ma ci turam pour ma bàyyi ma ne ko je suis victime d'un acharnement boo xaw ma xaw ma lu ko fi jar ndax lépp li may wax am na ay journalistes yu koy wax lu tax ñoom lu xew rek ñu jëli pabaale combat boobu laa doon mëne moo taxit nag ñoom suñ sañoon subhanallah Ousmane Sonko fa lay doxee waaye bii di bakkan yàllaa ko yor maître Clédor Ciré Ly lu mu leen wax rek laa wax am na lu des dama na leen su ma na leen l'heure est grave man Pape jomb naa di waxantu Aïssata Tall Sall génneel nga mim bu nekkee na du dëgg na jot nga lettre bu bàyyeekoo xam nga ñu nit ba mbiri amee suñu rôle ñun duñ nekk bëgg a nekk journaliste d'investigation gëm ko ñu boole wax len nag waxeewuñ ko demuñu fenn toog di wax di bàkku demuñu fenn di yëkkati suñu dënn di fëgg di wax ne ñoo fi dex ku nekk suñu ruq lu ndaw lii lañu yor demuñu ci benn télé jàmbur demuñu ci situ jàmbur demuñu ci rajo jàmbur demuñu fenn lu ñu xalaat mu bari mu mu tuuti fii la ñuy toog partagé ko ak yi ndax boo gëmee yàlla da ngay nangu loolu la la yàlla cëralee nga nangu ko sénégalais yi di ñu déglu dofuñu parce que li may wax gars yi ku jàppee dof rek kooku lay wut garab yi mu la fajee sénégalais yi kenn dofu fi den xam ndax li Pape di wax mii yenu maanaa la am déet ndax dama leen yàgg wax ne dama jàpp ne ñun ñii nekk ay abonné nekk ay nit yoo xam ne chaque jour ni may suivre dama dem ba famille la da ngay am noo ci ràññee ñoo ci xam famille la waaye yàlla def na na duñu am sax temps di lire li parce que li ñuy wax moo ñu ñor dama ne Macky Sall xam na ko Macky Sall xam na ne letat de santé est critique ministre de la justice bi nga xam ne moom la ñu jox rapport quotidien bu bàyyee ko ci administration pénitentiaire ndax moo ko yilif xam na ko ndax du médecin rek mooy wax ñoom ñu def ko ñoom ci biir administration pénitentiaire am nañu médecin ku yor loolu yépp koo xam ne day ñëw di contrôler man la ma daan def grève de la faim yëpp da daan ñëw di xool di contrôler di xool constater te kooku médecin bu xarañ la dama ne nañu bàyyi caaxaan yi xañ leen Ousmane Sonko mu doon candidat yéen a xam parce que loolu def ko sax sénégalais yi xam nañ ne loolu ngeen bëgg maa tey je m'en fous deful pas grave mais kantaa dem ci nag bay foyee dund jaambur ñëpp na ci pat kenn sañu cee wax c'est grave nit ku nekk nag dangay jël say responsabilité assumer ko man de bëgguma bokk ci ñi waxoon ne Pape Alé xamoon na lépp noppi ko ñoom jot nañ ay rapport au quotidien laa la wax madame la ministre Aïssata Tall Sall bind nañ ci rapport jox ne la Ousmane Sonko mi ngi service de réanimation principale bu dakaar dama koy firi ci wolof ñu ne la depuis quarante huit heures Ousmane Sonko dafa am fièvre bu jaaxal ñépp di miir di wàccu boole ci di perdre connaissance ba service de réanimation jaaxle am na wala amul bind nañ la bataaxal boobu pour ma gën la prouver ne bind na la bataaxal boobu dama lay wax ne la bind na la ci malgré un bilan biologique une antibiothérapie probabiliste a été démarrée xam nga loolu man mënu ko bind parce que xaw ma luy loolu bindal nañ la madame la ministre ne Il est aussi à noter qu'en dehors des épisodes de perte de connaissance, Sonko a des propos délirants et incohérents. Il exprime le souhait de retourner à la maison de correction de Sibokhotan malgré son état de santé délicat. ñu ne Ousmane Sonko day jékk ba ci yàgg perdre connaissance di def ay propos yu délirant maanaam du wax wax yoo xam ne du am cohérence c'est normal loolu boo defee hypoglycémie da nga koy def def naa ko moo tax dama ko xam ay sekkal lay bàyyee ba fu ñuy wax ak yow mën naa la génneel garab boo xam da la koy da koy naan ngeen baal ma ma war leen pour preuve lii yëpp ay mbuusu garab la damay war rek te yàlla tax da yëpp ay mbuusu mbuusu garab lii yëpp ay mbuusu ma wax la dafa am benn xeetu garab wala bi herbal complet dama lay wax lii yëpp chaque suba naa ci naan lu baree bari ak ngoon lii benn xeetu garab la sooy perdre connaissance yenn perdre connaissance yi day dem ba benn active main complexe ñu ko yónnee extérieur herbal la pour lan pour après doo am ay trous de mémoire parce que effet madame ay Tall Sall man bokkuma ci ñuy manqué respect nit ñi déedéet damay laaj rek es ce que jotee rapport bu mel noonu ñu dem ci Benalla ñi leen wax ne prisonnier de luxe la son état de santé actuel nécessite qu'il soit maintenu dans un service de réanimation parce que nee naa leen man ñun jomb nañ di toog di waxatu médecin colonel Khalifa Ababacar Wade professeur agrégé du Val-de-Grâce anesthésie réanimation urgence chef du département anesthésie réanimation urgence hémodialyse hôpital principal de Dakar moo yor service de réanimation man duma waxantu du mu dugg ci loo xam ne ëllëg nit ñi dañuy wax ne Pape Alé moo waxoon lii kooku moo yor service de réanimation rapport bu mat sëkk la yónnee na ma def ba xam loolu yépp nag parce que ñoroon na ma torop ñoroon na ma torop torop te rapport yi ma lay wax nii ci taabalu président de la république Macky Sall ñun ñii muy man sama cas muy kaawu Sonko c'est géré directement par le président de la république du juge du dara président mooy wax libéré la ministre de la justice wax juge bi la tëj mu def ñu libéré la juge bi def levé de mandat d'écrou jox ko administration pénitentiaire moo tax ba daan wax démb na administration pénitentiaire jarul ñaawo lama leen waxoon rek nekk kolila la leen dénk jour boo leen koy génne yéen a koy buubal sax ay bagaasam kon waxantuuma de waxantuuma te fas ma waxantu ci lii parce que c'est la vie d'un homme qui dépend de ça am na nag ñoo xam ne yàlla moo bindee seen xol mu nekk xolu goudron buñ sañoon usmaan Sonko yàlla traité traité ñu robe ko wante yàlla nag moo yor bakkanu nit te kenn du dee ñaari yoon médecin traitant professeur xalaaf Khalifa Ababacar Wade xam naa ne dinañ jaaxle na leen rapp amul rapport bu am si Sénégal boo xam ne bëggum bëggum su ma ko bëggee am dinaa ko am dafa am loo xam ne ñun dañoo fonk république ba duñ ci yegg sax parce que après tout dañuy dem ay élection ñun amuñu benn nationalité Sénégal la ñuy toog ñoom peut-être seen doom yeeg seen loolu am na yenn nationalité Sénégal bu tàkkee ñun ñëpp la tàkkal bokk man de ci laa bokk ndax fii laa toog awma beneen nationalité te defe naa weesu naa fu may demee di immigré too ko waxee ñu ne day garaaw quoi mais l'objectif en fin de compte lan la in fine mais empêcher la candidature de Sonko Sonko boo leen ko génne woon tal tey dina tal leneen lu dul xanaa dina defar yaram ki yor service de réanimation professeur Khalifa Babacar Wade def naa noonu lu tudd nii nii ma bamtuwaat professeur agrégé du Val de Grâce anesthésie réanimation urgence chef du département d'anesthésie réanimation urgence hémodialyse hôpital principal de Dakar lam wax dafa leer de Depuis 48 heures, le patient présente des épisodes de pics fébriles à 40 degrés avec des frissons. maanaam maanaam Sonko fi mu nekk nii day def fièvre quarante degré boole ci di wàccu ak lox ak di perdre connaissance pour ma wax leen na leen rek wax na leen des prélèvements infectieux ont été effectués gouttes épaisses hémoculture xam nga man du ma médecin ba xam li qui sont revenus non contributifs un bilan biologique a été retrouvé une hypophosphorémie une hypoglycémie une hypokaliémie une hypoazotémie une hypocalcémie et une hypomagnésémie À noter par ailleurs qu'en dehors des épisodes de perte de connaissance, le patient a des propos délirants, faisant état d'un désir d'en finir ou de retourner en prison malgré son état de santé. C'est clair. man waxuma ko de xam lii man jànguma li man sociologie laa jàng ak journalisme relation internationale loolu laa jàng rapport yi ma leen di wax yëpp nag. ñi ngi ko yor seen taabal xam l'heure est grave kilifa diine bu yëgutoon léegi doo mim na yëg nga te ku ma ci woo ma wax ak yow ci dal ci yiw ci responsabilité ne la lii moo xew li xew nag kenn rek a ko mën a dakkal muy président de la république démb ci guddi ba léegi soo leen gisee maa ngi den def ay statut di dégoûté parce que dama gis liir fanaan ci gis seen jokkalante parce que xam nga ñun dañ yor une zone mi sous écoute dañu jëfe mais ñuy grawul mais ñun dañ doon jokkalante pour xam lan moo xew ci dëgg-dëgg ci kaw dëgg na duñ ci naafiq duñ ci parparloo lii moo am ci état de santé bu Ousmane Sonko li leen met Clédor Ciré Ly di wax ak ay avocat am sax dañ koy nëbb lu baree bari dañ ciy nëbbu lu bare baree baree bari kon may wax rek na leen na leen en tout cas dañ ko xamee noonu ñoom nag seen bëgg-bëgg te yàlla rek moo ko mën mooy <laughs> yàlla tere traité ko subhanallah ñu rob Ousmane Sonko balaa ñu jëm élection présidentielle bon faut que je me retienne voilà faut être bon moo tax ma bëgg a waxtaan ak tuuti tamit nga bëgg a xam lan moo ko fi jar ma wax waa Pastef ci loolu may wax lu gàtt muy kilifa diina yi kilifa aada yi mais bon jaratul ma yëkkati sama kàddu di leen koo wax kon yéen ñi nekk ci Pastef ànd ak Ousmane Sonko moytu leen ñu leen di divertir ci ay wax yu sew jàpp leen ne kenn mënut a nax Ousmane Sonko kenn mënut a wor Ousmane ko ñi koy jéem ak ñi koy def yëpp man Pape maa la wax li Ousmane Sonko xalaat ci ñoom xam naa ko waaye lu jot yomb te lu lu jot ci àpp ba nga koy regle fi nekk nii. li jot xam nga lan la bu leen nangu ñu leen ñu dugg dugal ci ay diggante parce que fii kenn dofatu fi ku fi wax xam nañ fa nga jëm a ah, wala fa nga jóge Ousmane Sonko ci at yi ñu nekk ci politique ci Sénégal mooy diri mooy suqali mooy may fit mooy mooy fal di folli ñenn ñu bari élection locale yi wane na ko élection législative yi wane na ko da koy def ba pare kay ñu war ko waaye ngeen foog ne Ousmane loolu du ci jàng ay leçon mais est-ce que yéen war ngeen mën a nekk toog ci loolu di ko ŋawti ŋawti j'ai bien aimé benn vidéo buñ ma envoyé si Cheikh Anne mën ne ko lii il a compris que ce pas l'essentiel l'essentiel en politique Sonko li doon du coalition moo ko jox du dara peuple sénégalais bi ñoo ko ko jox il ne doit rien à personne sinon la peuple sénégalais sénégalais yi ñoo war mars deux mille vingt et sénégalais yi ñoo continuer di xool di wax kon dama bëgg vraiment bu leen di xëcc ci ci wax yu sew sewaan yooyu man de bu ma ci kenn interpellé ku ma ci interpellé du ma la tontu parce que am naa fulla ak fayda ju toll ni man li ma bëgg def li ma bëgg a wax ci laay focus ne vous laissez plus divertir mais damay wax ne mais xanaa yéen ku ànd ak kay ne diw mooy sama leader war ngeen mën a jël tarfa tey ay ni di ko déglu di xam li mu leen di wax oui diw daf ñoo war diw traître la diw lii diw lii et après ngeen foog ne sénégalais xamuñu ko je suis désolé ngeen foog ne sénégalais xamuñu ko comme yow am nga intelligence ba analyser ba xam ne diw mii daf joo war kii daf ñoo traite mais jàppal na sénégalais yi xam nañ loolu te nag fii élection la ñuy dem élection peuple sénégalais man Pape Alé ma wax ba fal Ousmane Sonko président de la République sénégalais yi ñooy jug mobiliser wu dem fal Ousmane Sonko président bu ñu ko bëggee bu nekkee candidat ku fi falu fa la preuve tey jii ñëpp a ngi neexal di xalamal le peuple sénégalais pour lan parrainage waxagu ma yëgagu ma ci wat de ngir yàllaa yonent bi ñu may leen parrainage kon kay nga xam ne la derni mot revient au peuple sénégalais xam nga nit lu muy moytu mooy yor dunduk xob al maktoum sama maam ju baax jooju moo ko doon wax nit day moytu am dund xob xam luy dund xob ngelaw fu mu ko fekk dugal ko ci pax te doole ji nekk ci bëy ba muy tëb tëbi bu ko raw dafa nekk si ñay mun a dégg nag du bouger mètre kon ngeen war a mën a toog am en toute responsabilité xam ne vraiment c'est dur c'est dur nous on se bat pour dëgg la vérité man Sonko sonnoon na trop Macky Sall xam na ko ay Tall Sall ministre de la justice mooy yaram intéressé xam nañ ko xam nañ toutes les éléments toutes les informations tous les éléments di koy attesté ña koy topp di ko surveiller wàccee nañ ak ñoom léegi nag comme ñépp yëg nañ ko ñëpp xam nañ ko ma ñëw wax leen tuuti ci kàccoor bi la témoin la mu bind tey dafa am solo mais ngeen jàpp na xol tooy na c'est dur c'est dur bay wax rek ne fam loo xam ne ce pays moom gulaak la ko tuddee gulaak c'est la même chose man dama jël titre bu tuddee ko le Sénégal ce pays pris en otage ce pays se dégradage inexorablement rendant les citoyens dingues et irascible en fin de mandat, plutôt que de le pacifier, le chef est en train de le transformer en enfer. mu ne réew mi dafa mel ni dafa nar a tasaaroo ba sax ñun ñuy doomu Sénégal ñu commencé dof katakay ni ndax dañoo yaakaaroon ne kuy jeexal ci nguur danga war a dal indi jàmm waaye nga jël réew mi mu mel ni safara mu jaaxal ñëpp en une vallée de larmes où famille familles vivent l'amertume le legs qu'il laissera à son successeur nee na réew mi yëpp ay rongoñ la ay rongoñ yu bari lool ak ay naqar yu tar lool nekk ci xolu famille yu baree bari loolu moom bér na ko leer na ko ne Macky Sall dina ko bàyyi bàyyee ki ko war a pourrait assurément peser sur les épaules de celui-ci aujourd'hui plus que jamais ce pays que nous aimons tous et que pren comme leur patrimoine mu ne loolu nag dina dis lool ci ki ko fas wutu moom kàccoon bi nee réew mi nga xam ne duñ ko bëgg lool te ñenn nag jàppee ko son ndono baay seen ndono waa kër qui déclare sans pudeur qu'ils ne les sont pas des aventuriers a besoin de faire taire ces douleurs qui brûlent dans les cœurs mu ne réew moomu nag ñi taxaw di wax na wooy duñ ko bàyyee ay nit ñu xamul dara ñu yóbbu lu mu soxla mooy naqaru xol yi fi nekk ñu arrêté ko jëm ko fa ndax na xol yi tooy na lool métti na ce Sénégal les tenants du pouvoir actuel ne l'aiment pas que ce qui aspire à l'Israël mu ne Sénégal gi ñu yor nguur gi gënuñu ko bëgg ñu ko bëgg a jël diriger ko tous ces jeunes qui le fuient pour un ailleurs qu'ils espèrent meilleur ont besoin d'être rassurés xale yi nga xam ne ñu ngi génn fii di jël looto looto yi wala di jaar yoon Nicaragua xale yooyu yëpp dañoo bëgg ku dalal seen xel ils ont besoin de sa sentir en paix dañu bëgg a nekk ci jàmm nu ñuy nekke ci jàmm xale bu taxaw nga ne ko terroriste nga force obscure nga force occulte nga euh, commando rebelle jàpp rap ci biir kaso bi Parmi eux, beaucoup de jeunes entrepreneurs et qui ne végétaient donc pas dans l'oisiveté, ils ne comptaient pas non plus sur des politiciens pour vivre. te moo ne de xale yi ñu ngi am fulla ak fayda ji bëgg a liggéey bëgg a ñàkk jariñu bëgg seen réew mu ne xool leen ku mel ni Falla Fleur tey jii ñu ngi koy bundu xataal lu ne ñu koy def ci biir kaso camp pénal bi ah mu nekk juriste brillant gëm la muy def lan la Falla Fleur def ban singali ko nii du lenn lu dul nekkoon ca procès Adji Sarr wa procès pornographique ba di wax la fa xew son seul crime de faire vivre à travers les capsules yu mu doon joxe li nga xam ne moo xewoon ci procès bi du leneen ñu singale ko ci ñu yóbbu ko ci kanamu juge bi Falla Fleur génn ci kaso bi jàkkaarloog juge bi ne ko ne ne moom Sénégal rek la bëgg moo dee ci xolam te jaral na ko mu joxe bakkanam mu ne fi mu nekk nii lan lañ ko def ñu ngi koy troxal di ko xoññañal ak ñuy grève ca camp waaye mi ngi jàpp fulam ngorom mu ne démb kàccoor mu ne démb xoolal yëf yu woyadi yi ñu génne ko ci cellulam yóbbu ko commissariat Grand Yoff di wax ne da daan yàq deru administration pénitentiaire matatu ko ñun ñëpp xam nañ ne administration administration pénitentiaire nam la fa dal la demee mu di ne si le ridicule pouvait tuer la volonté du pouvoir est assurément de bâillonner li nguur gi bëgg mooy bayone xalaat yi xalaat waxuma sax nga bind nga xalaat mun a xoolal colonel Cheikh Tidiane Mbodj bi ñuy jiiñ ne dafa ànd ak Ousmane Sonko deful lu dul wax xalaatam celui laa même dans la vie mu ne nag balaa ngi lu gën a jogat nag mooy kii nga xam ne mu nga tëdd ci kaw lalu hôpital kenn xamul ëllëg nu muy demee ñoom ñu doggu ci ngir jël bakkanam lenn taxu ko nag bañ ma bokk ci élection présidentielle mais réew mi du réew loolu la kàccoor bi bind tey nee na réew mi du réew et puis tey nga xëy jël journaux yëpp FMI banque mondiale lebal nañu cent soixante deux milliards lan mooy mam mérite ci leb journaux yëpp tëb cent deux milliards sar bo moom cent soixante deux milliards FMI FMI moo mën a wax sénégalais yi ñun ndax ñun suñu réew mi dox na wala doxul FMI moo ñu mën a wax suñu woyofal bii dox na wala doxul FMI moo ñu mën a wax na fourniture xale yi dox na wala doxul damay laajte FMI moo mën a wax borom kër yii bu ñu añee du ñu reer bu ñu reeree tëbal ndékki wala bu ñu toggee añ ci lañuy tibb reer FMI moo ñu war a ñun taxaw fii jox na ba ku nekk di ko tiitaroo di kot koti FMI et après dafa tax xale yi dootuñu jël looce bi dem dafa tax xale yi duñ dem Nicaragua il faut arrêter cette escroquerie communicationnelle laa ko war a tuddee walla lan ba lépp ku mën kay du la lebal kuy leb di leb di leb rek da ngaa tële leb leb leb leb da ngaa tële loolooy dëgg loolu nag lañuy ñuy tiitaroo ñun Sénégal démb gis ngeen ma bind ci affaire aide de la presse bi mais principe laa defee man laajuma parce que xam naa su ma laajee <laughs> duñ ma jox moom fula ju tol ni toog jàpp sama ngor dund ak média comme média partenaire bi jàpp sama ngor sa ñàmb ku mën a dimbale te ka am na xëy ku mënul lii yomb na yàlla nga jël sa ordinateur toog di wax ak sénégalais yi ci dëgg nag ëllëg ak si nga am way wu rafet say doom am way wu rafet waaye jaarale aide à la préparation je m'en fous éperdument Moussa Bocar Thiam ne me verra pas man ñàkkal sama bopp fayda am na loo xam ne juste munoo jox parce que da ngay condamné Walfadjri lu néew jox ko keneen nit da ngay am ak respectabilité sa bopp ba pare tey boo fi demoon di ko def léegi xuloo ah, ak wax mais da nga leen di wan na leen ñoom duñu yàlla duñu yonantu duñ dara di nga dund nekk sa jàmm am la conscience tranquille boo waree wax dëgg wax dëgg te yàlla tax taxawal fi askan bi loolu rek waaye ngeen baal ma nag j'ai eu des moments de faiblesse c'est vrai et je vais retourner dans ces moments de faiblesse certainement parce que c'est douloureux bu ñëpp doon xam lu ñuy xam dinañ gën a révolté wu si euh, kanam tuuti bu leen décroché di ngeen ànd ak euh, Aminata Touré ancien premier ministre candidate pour présidentielle 2024 yi incha allah dina ñëw toog ñu seq waxtaan seq waxtaan ci réew mi ak jafe-jafe yi mam maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jéggalu nag j'ai eu de faiblesse et man waruma am comportement boobu ci yéen ñun ñoo leen war a dooleel mais on est humain on est humain parce que dama xamul lu ko fi jar lan moo ko fi jar parce que dafa am lenn loo xam ne moom il faut ñu xam ko mooy présidentielle deux mille vingt quatre yii ci nii walla ci naa ci nii walla ci naa Sonko Pastef ak patriote yu bëgg Sénégal parce que Sonko li muy woote yëpp ak li wax ji di bëri yëpp dafa fekk na la muy woote méngoo ak bëgg-bëggu majorité sénégalais yu bari rek réew mu tegu ci yoon réew mi nga xam ne kenn du tëdd toog muy dox sàcc yi dañ leen tegee na le faux homme d'affaires yi nga xam ne doorkat lañ dun dara te loolu foog ñu ñëw ci parce que da ngay gis ñenn ñi wax ne way nous représentons le patronat mais kooku boo ko xoolee da nga wax ne waa kii lu muy jiite ana entreprise am lan la am loolu yépp nag waxtaan la yoo xam ne dañ koy waxtaanee te focus focus focus waaye rek di wax ne waa xale yi Pastef seen temps bari na lool ngeen koy perte ci leneen voilà di leen sant di leen gërëm ci kanam tuuti soxna aminateur Touré ñëw toog ak man ñu waxtaan ci réew mi di sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf à tout à l'heure ne décrochez pas